Euh, ñu ngi ak Adama Diouf qui est juriste de formation je pense que depuis ce matin ba léegi ñu ngi ànd Ibrahima ñu ngi leen nuyuwaat Adama. waaw maa ngi lay sant maa sant bu baax. Euh, certainement yëg nga mooy la dissolution du parti PASTEF déjà. est-ce que ministère de l'intérieur am na droit mu dissoudre benn parti politique. non mais xam nga yëpp ce sont les conséquences quoi. parce que déjà un parti légalement constitué. donc je ne vois pas donc pourquoi le ministre de l'intérieur donc passe à la dissolution. Donc, euh, quel est le motif Parce que ça n'a rien à voir avec la avec l'arrestation de Ousmane Sonko. Donc, euh, dans ce cas d'espèce, donc vraiment, je dis que donc il a, y a, y a, pas une violation parce que c'est un parti légalement constitué. Mhm. quel est le motif invoqué par le ministre de l'Intérieur pour dissoudre Si c'est lié à son arrestation, je dis que c'est deux choses différentes. Ok. Dans le Japonais, y a une politisation là-dedans Voie politisation, parce que j'ai dit que donc la dissolution n'est rien d'autre que les conséquences de tout ce qui s'est passé. Parce que boo xoolee ne kii am na lu ñu koy tuumaal arrêté ko ça n'a rien à voir avec un parti qui est légalement constitué donc pourquoi donc cette dissolution donc yaakaar naa ne ñoom it war naan que mën a attaquer attaquer la décision du ministre donc devant le conseil constitutionnel. Mhm. mais moom il a parlé de lourd li nga xam ne moo di ay nit yi ñàkk seen bakkan ay saccage yoo xam ne am na fi ay ay ay cest ci lool la ko ak ay pillage également. non loolu mu ngi sukkandiku parce que boo gisee ne en tant que ministre de l'intérieur que la situation nationale est menacée je pense que le procureur lui-même peut s'autosaisir et identifier tous les responsables et donc procéder à leur arrestation. donc sur le plan pénal donc loolu moo gën a yenu maanaa que de dissoudre le parti au motif que il y a une menace à l'intégrité nationale. Mmh. ok est-ce que bu ñu yemee rek ci communiqué bi mën ah, mais bien sûr comme déjà donc le ministre a prononcé la dissolution on peut dire que de fait le parti n'existe plus mais en réalité je dis qu'il y a toujours possibilité d'attaquer la décision du ministre devant le conseil constitutionnel. kon mën nañu déposer recours ci Mais évidemment, on peut déposer un recours parce qu'il y a la libre, en tout cas, liberté de créer un parti politique. C'est un parti qui est légalement constitué. Donc, même vu les événements, est-ce que ça doit donc euh, euh impacter donc sur la vie donc du parti parce que yaakaar naa ne foofu c'est un autre débat boo xam ne ñoom il faut faire un recours pour demander l'annulation de la décision du ministre ok léegi laaj bi ñëpp di laaj mooy tey député yi nga xam ne ci bañeeru Pastef la ñu falo ak les maires quel sera leur sort lan mooy nekk seen ëllëg. waaw mais seen ëllëg parce que ñoom am jotewul dara ak li nga xam ne mooy parti Pastef wala li nga xam ne mooy arrestation bi parce que sont des députés donc qui sont donc légalement en tout cas élus donc ils ont une immunité parlementaire. Donc, ils n'ont pas été poursuivis pour telle ou telle infraction. Donc, on ne peut pas, en tout cas, donc, démettre ces députés de leurs fonctions. donc, failli beaucoup. Donc, non, ils conservent tout, ils gardent toujours leur poste de député. Donc, jusqu'à ce qu'en tout qu'ils soient associés ou bien complices à de tels ou tels faits qualifiés d'infraction. mais comme que parti bi tas nañ ko kay mbaa. wala amul ak parti bu Non, parti pour ça, ça c'est sur décision du ministre. Mais je dis que cette décision peut être attaquée. Ok. Donc, on peut attaquer la décision du ministre devant le Conseil constitutionnel parce que déjà c'est un parti légalement constitué et que le parti n'a rien à voir avec tout ce qui s'est produit ces derniers temps, donc par rapport à l'arrestation d'Ousmane Sonko. Donc le motif que vous avez évoqué tout à l'heure, parce qu'il y a menace à l'intégrité mhm. mhm. je pense que si tel si le cas, donc Donc identifier tous les responsables et les arrêter immédiatement. Mm-hmm. ok léegi lu jëm ci koppar gi moom nee na koppar googu dinañu ko dal di jël dal di ko réglementé et cetera. Euh, koppar. koppar gi gi gi gi Pastef yoroon ak li ñu doon def ci wàllum euh, koppar express et cetera et tout. waaw xam nga loolu moom fekkee def nañ ko aussi donc euh, les fonds politiques yi nga xam si ne parti. kooku dañ koy affecté donc au niveau donc des fondations ce sont des œuvres de donc euh, de caricature donc euh, euh comment encore des œuvres charitables quoi mhm. donc une fondation d'habitude ou bien un parti vous pouvez dissoudre les fonds seront affectés donc à des fondations donc ça sont des des, des œuvres sociales mais je pense que c'est prématuré quand même de prononcer la dissolution mhm. donc vu le contexte donc okay. qui se passe okay. le contexte actuel Donc il fallait au moins en tout cas donc, suspendre cette euh, décision mmh. et de laisser la justice faire son travail. Ok. Euh, Mor fekkee am nga laaj par rapport ak euh, mbir wala Mame Marie. c'est bon. ok merci beaucoup Adama ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay donc gërëm naa la man. jërëjëf merci en tout cas tey sonal nañ la ah. non non non non non je suis toujours à votre disposition. là ne vous en faites pas merci beaucoup bu amaatee lu bees rek dinañ la waat euh, pour gën a. incha allah rabi incha allah merci beaucoup jërëjëf jërëjëf. léegi Adama avant de terminer parce que am na ku bind léegi léegi lu jëm ci mairie bu Ziguinchor est-ce que Ousmane Sonko dafay wéy di ko jiite ba léegi. non il est toujours maire de Ziguinchor ah. il n'a ah pas perdu donc son donc euh, son statut de maire. oui donc à moins que le président par décret donc euh, comment encore. faut ce qu'on appelle une délégation spéciale. OK. Voilà, donc il faut un décret présidentiel, donc pour instruire ce qu'on appelle une délégation spéciale. Okay, okay. Mais on peut dire toujours que Ousmane Sonko est maire de Ziguinchor. Jusqu'à présent. Oui, jusqu'à présent, oui. Ok. Mm -hmm. Merci beaucoup, Arama. Ok, merci. Merci beaucoup. Euh, jërëjëf moi je pense que <laughs> mhm. jot na jot na leeral lu bare bari donc pour vous tout simplement que ne euh, bu ñu yàkkamti wax que ne tas nañu ko parce que les avocats aussi mën nañu dëgg recours foofu ca conseil constitutionnel euh, je pense que cette fois-ci également le droit sera dit dans cette affaire ah, mhm. affaire Ousmane Sonko ndax recours dina ci dina ci mën dara moor ndax tamit gis nañ li nga xamante moo ci xew yëpp depuis 2021 ba jamono ji ñuy wax ak yéen recours saa su amee ah, du mujj fenn tey tamit saa boo xamante ni état bi wax na rek li nga xamante ni loolu moo loolu la wax moom loolu mooy am non je ne pense pas ñu def recours ba réussir ko parce que boo xoolee euh, man dama gëm ne dafa mas a bokk toujours seen ay objectif seen seen seen seen bëgg-bëgg te jàpp naa ne aussi tamit euh, apparemment mën naa wax ni euh, plus ou moins réussir nañ ko parce que tey bu fekkente ni annoncé nañ dissolution bu parti Pastef nga ginnaaw buñ ko condamné mandat de dépôt bi tellement que nii lan moo leen deseeti mooy que nii jeex na parce que boo xoolee en tout cas démarche bi nga xamante ni ñu ngi doon mënee depuis bi mbir mi commencé ba léegi euh, man mu wax dëgg yàlla loolu la ma mës jox mais daal euh, amuñu loo xamante ni mën nañ ko si apporter lu bëree bëri ndax wax dëgg yàlla tellement que nii doon naa njortu ci suba. Euh, kan yi Ousmane Sonko mën naa am condamnation nax li xew yëpp mais wax dëgg yàlla moom sama xel mosuloon dem ci euh, dissoudre Pastef xañ na à moins que euh, selon ni ma doon gisee seen ay démarches ma gëman ne loolu bokk na seen ay objectif mais fi ñu toll nii nag récemment daanu moo dégg yàgg naa gëj a dégg ñuy wax wax ju mel noonu mm-hmm. mais apparemment daal wax dëgg yàlla réussir nañ ko mm-hmm. ci kanam tuuti Bougane Gueye Dany dina dugg ci li nga xamante ne mooy antenne bi moom nga mhm. xamante ne ci opposition bi la bokk jege loolu ki nga xamante ne Ousmane Sonko euh, ci kanam tuuti incha allah dina dugg ñu am réaction par rapport ak euh, li nga xamante daal dinay xew euh, ñu jàll également Bamba ci li nga xamante ne mooy arrestation Ousmane Sonko tey jii incha allah Ousmane Sonko dina fanaani guddeem gu njëkk fële ca kaso ñu koy toppee huit chefs d'inculpation benn bi appel à l'insurrection beneen bi nga xamante ni mooy stop association de malfaiteurs beneen bi atteinte à la sécurité de l'État, association de malfaiteurs en lien avec entreprise de terroristes, complot contre l'autorité de l'État acte et manœuvre à compromettre à la sécurité beneen bi bu ci mujj mooy ak sàccum téléphone lañ ci daal di rek teg mu mel ni tey jii la Ousmane Sonko fas yéene rek daal di euh, fanaan fële ca Rebeuss mu nekk guddeem gu njëkk ca euh, kaso. Mhm. y a aussi euh, division de fausses nouvelles je pense que moo nekk mhm. huitième li ñu koy li ñu koy toppee mu di chef mhm. d'inculpation. je pense que par rapport ak li doon war di wax tout c'est important parce que

lii lu ñu yàgg mbébét la lu ñu yàgg a préparé ils attendaient un bon moment pour le faire mais man sama inquiétude c'est autour des peut-être nous sommes à six des élections euh, présidentielles est-ce que d'habitude pour vous dire maintenant parce que je pense que édition spéciale bi ñu doon def ce matin la question euh, bi ñu doon gën posé moo doon est-ce que Ousmane Sonko euh, li nga xam ne hormis peut-être li nga xam ne moo di mandat dépôt il est éligible naam

Euh, je me rappelle Idrissa Seck bi ñu koy jàpp en